Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur bu wér gërëm suñu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi fësal seen cofeel jamale ko ci ñun doore ko ci maladie tëdd ci hôpitaux yeeg ñi weyale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen waaye way dawlu yi yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i kilifa diine fu ci waay mën a nekk yëgal ni ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm gudd fan gu ànd ak wér yàlla bàyyi la ci kanamu njaboot gi bàyyi fii itam ci sunu kilifa aada yi seen kanamu njaboot waaye itam li ñu namm ci ñoom ba tabb leen yàlla bu ci gàccee am benn yoon ànd ak lu mën a xew képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo ci réew mi rek eh, jamono bii nga kale ko ci sa ngën gi télé di la 2STV yëgal ni ngeen gi nuyoo ñëw na ci yow di asalaamaaleykum nuyu ko itam ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy ko ci 88 point 4 seen rajo origine FM ñu war a àndandoo ak yéen ci biir seen émission kër gi ni ñu koy defee saa su ne waaye bàyyi xel waa bitim réew bu baax a baax nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm te xam ni ñoom ñëpp Euh, jamono bii seen xel ak seen xol yëpp Sénégal la nekk ndax non seulement bëgg ñibbisee ngi ci waaye événement bu toll ni màggal itam bu yegsee rek xel ak xalaat yëpp de daal di dem Sénégal ba tax na rek euh, ñu ngi nuy ñi nekk bitim réew ñëpp di leen ziar di leen wax ne bañ ngeen namm Sénégal a tax ma def nii safar ko nii macha allah waa tey tey tey moom spécial safar la ci biir seen émission kër gi ñi ngi koy defee événement bu nekk gis ngeen ko nag une fois n'est pas coutume la tubaab wax. parce que nag daf ci tollu jamono yoo xamante ni 16h30 euh, la ñuy def émission bi waaye nag tey comme programme bi dafa chargé te xam ngeen ne euh, événement bu lool ba tax na incha allahu taala ëttub màggal gi defe naa noonu la tudd dafa war a am 17h loolu moo tax seen émission kër gi ñu wàcce ko tey incha allahu taala parce que yéene àndandoo ak yéen waaye nag ni ma koy defee saa su ne waxoon naa leen sànq ne leen une fois n'est pas coutume waaye bii moom coutume la ci man ndax màggal gu jot damay daal di ànd ak moom muy koo xamante ni ku sori ci man la di doom ci man di doomi Tëngéej di koo xamante ni macha allah kilibam ngeen seetaan noonu léegi léegi dinaa ci ñëwaat kon euh, sëñ Laat maa ngi lay nuyu di la ziar. Mm. Euh, di la bàyyi nga nuyoo mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan. salaatun lazi fi kulli saarin wa fi safar. amaani ala maahi maalaab sawa safar. salaatun wa fi safar. amaani ala ma'i ma labsa wa safar salaatu alladi fi kulli saarin wa fi safar amaani ala ma'i ma labsa wa safar falaahi bi kawni abda rabbi qadimuhu ajibun bi li jaada mughnin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqihi alayhi salaama man loo utu bi safar salaatun wa taslimun maal bishri sarmadan ala man bi moksin maal amni wal busar firaaliya bil muxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsiran maal jinni wal busar rafaatu sukuran baada amdin muqalladin li baaqin ma durin law aada wa qadar salaatu alladi adu abdan bi ala man bi li qaada safan bila kadar fadaatu xayral xalqi abdal qasaayidi wa kawni bi abdan qadiman loo zahar asiiru ma labraari hiina asiiro wazana li daani unaaka yadiiru masiiri ma laxyaali lillaahi binnabi wa maali li xayri laahi awdu masiiru yasiiru bi aljazbu alladi qaada li ilaa karimin alayhi ma arum yasiiru شكوري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نسوري وتأييدي وحفظي لدى الغداء من الواسع الوهاب فهو نسير أميري لدى سيري وموسي وذيلتي خديما له وهو الخديم خير أجار على الواب جل تكرمان على قمة المطار وهو أجير نسوري كوني عبد ذي العرس وغدو خديما لخير الخلق وهو نذير اسكي ما شاء الله فتبارك الله macha allah eh, eh, dañuy wax ni saxaar bu jibee gaar day korne waaw ñëpp xam ne mi ngi yegsi waaw looloo tax rek ñu nuyoo béytu xaside yooyu ak kasa xaside googu nga xam ni sëñ Tuubaa da ko def ci safar am na solo dëgg yàlla asiiru xaside mm-hmm. gi nga xam ni mm-hmm. ah, ba muy dem ci géej gi mm-hmm. dëgg yàlla ah, la ko bind dëgg yàlla kon xam naa loolu suñu ablaat aw dina ci ñëw am na solo ñu ngi lay ziare bu baax nax nu kazalika di la sant bu baax ci invitation jërëjëf di ziare waa Tëngéej yëpp nag ngi lay fay maa ngi leen solo tayit yaakaar naa ne xolu téléspectateurs yi sedd na hmm. kon li ñuy def rek mooy beneen Abdoulahat encore la ñu àndalaat ci plateau bi moom tamit muy Abdoulahat aw ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokki téléspectateurs yi ñuy setaan bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli sadid lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraay mbokki àddina ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant Serigne Touba mm-hmm. ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbàkke yàlla na yàlla su borom gën a yàggal. amiin amiin te may ko ak wér. amiin ak njabootug sëñ Tuubaa yëpp. Hmm. képp ku ne ci ëtt bu ne. ka nga xam ne moo fa nekkal waajuram wala maamam. Hmm. yàlla na ko fi suñu borom gën a yàggal te mu may ko wér. allahumma baax kilifa diine ne ci réew mi yëpp. Hmm. soxna Mbayang. jox wàccuwaay. mbokki taalib yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel émission kër gi nuyu sëriñ Abdou Lahad Mbaye mm-hmm. mi nga xam ni ni mu tàmbalee jataay bi mm-hmm. doy na sëkk ndax xasida gi mu tàmbalee rek mm-hmm. sëriñ tubaa xaadima rasul da cee wane boppam daf cee wane boppam sëñ tubaa da cee wane boppam danga may tegal loxo bi foofu 88 la 628 14 13 seen émission kër gi la euh, spécial safar ci la ñu nekk ngeen mën a woote itam am paasu màggal paasu màggal yaa ngi tegee poset baa nga fee parce que dama am lu ma ci bëgg rawale loolu moo tax mais en tout cas ku dugg ku nekk jaar ko ci 88 628 14 13 incha allahu taala danañ la may paasu màggal wala ñu jox la loo saafee café rek toog ci sa kër di safar ba màggal gi jot incha allah ñu daal di dem euh, lu waral nga wax loolu ci xasida gi xasida gi li tax ma ne Sëñ Tuubaa mm. daa lu mu ci wane waaw xam nga fan. Mm. ku ne app bi ngay dund. waaw sunu borom da caa noppi. Mm-hmm. la yastaqiruna saa wala yastaqdimun kenn ku ne am na app. dëgg la. waaye sëñ tubaab bi mu bindee xasida gii da koo jox ku ñuy wax sëñ bu Njaay Maabee ca Ndar. sëriñ bu Njaay Maabee. ca Ndar ca Ndar. ni ko asiru gi mm. tee ko. Mm. dinaa dem liggéey li lislaam ba ñëw. te doo faatu ci diggante bi. moom la ko sëñ Tuubaa wax. moom Assirou gi moom Assirou gi mhm. sëñ Tuubaa da koo jox. ni ko mooy sunu seede. Mhm. tee ko dinaa dem ci géej gi ba ñëwaat. Mhm. fekkaat la fi doo génn àddina. est-ce que. loolu sëñ Tuubaa rek nag la ko yàlla xamal. ku ne app bi nga fiy def. ak kañ nga war a dem. moom sunu borom da koo xamal. ndax moom yàlla da ko may yaqudu li uluma man taqaddamu wa taaqaru wa taalu qiddamu nee na xam-xam ya jiitu yàlla dama koo jox mm. xam-xam yi mujj yi suñu borom jox na ma ko ba noppi nangu sama liggéey man sëñ Tuubaa mm. waaye ci biir xasida gi sëñ Tuubaa daa am lu mu ca wane mm. soxna Mbayang ba tey bon lan tubaab bi nee woon na sëñ Tuubaa wutal ay nit yoo xam ne ñu wéetali la booy dem sëñ Tuubaa ni ni leen wéetu mm-hmm. ñu ne ko yow lu tax wéetoo sëñ Tuubaa ni leen rafiqi kitaaballahi wal mustafa sama wéttal mooy alquran ak suna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaay na wéttal moo tax li tax daawul sol mu am poos mm. moom sëñ Touba. Mm. alal moom la ñëpp bëgg mm. waaye sëñ Touba soxna Mbayang li la séq ak xaalis soxna Mbayang bu la laajee la sëñ Touba séq ak xaalis mooy lan tegal nii jëlal lii sëñ Touba jëlal tegal nii jëlal lii lii la sëñ Touba séq ak xaalis est-ce xaalis moom li sëñ Tuubaa séq ak moom mooy tegal nii jëlal lii tegal nii da nga koy teg ni am soxla mun ko jëlal man de du ma ko def nag sëñ Tuubaa nag noonu la daan def <laughs> est-ce que xam lu tax neewoon na am na ay coffre-fort ni mm. sëñ Tuubaa nee na mm. banque boo dem am naa fa ay coffre-fort mm. ñu ne ko waaye yow say banque ku ibbi say coffre-fort loo fay fekk mu ne alxuraan ak sunna est-ce que kanzi maami soxna baali kitaabu mm-hmm. wala addiisu laa jamaa fiddatin la jamaa zahab sëriñ Bamba nee na samay coffre-fort sama trésor dëgg-dëgg. mooy alquran ak sunna. est-ce moo tax alquran googu ak sunna googu. Hmm. moo tax sëñ Tuubaa ni dund naa. ganee jamono Mbàkke Baari. Hmm. falaa ganee jamono. Hmm. Mbàkke Bawol. waaw Mbàkke Bawol la sëñ Tuubaa ganee jamono. ganee àdduna ganee jamono waaye Mbàkke Bawol gi mu ganee jamono ba ni demee Tuubaa. waaw musta jëf lu ab taalibeem di dégg naan accam sama sëñ ba. wallaay wallaay balaa. ba mu ganee jamono Mbàkke Bawol. ba ni mu génne àddina sëñ tubaa jëful lu ab taalibeem di dégg naan accam sama sëñ bi est-ce rek est-ce que rek nazaafatuhu kulli mhm. mi na lax wi taxarat wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu mhm. sëñ Bamba nee na yàllaa seelal sama lépp lépp loo xam ne ay caaxaan la ak i fo mhm. kenn du ma ci dégg waaye sama yéene nag mooy leeral sunu sayyidina Muhammad ba mu leer sallallahu alayhi wa moo tax sëñ Tuubaa nag waaw màggal Tuubaa gi nu dëgmal bal ko tubaab bi wooyee waaw loolu dafa war a leer soxna Mbayang ba ko tubaab bi woowee xam nga la la ko tubaab bi doyee lan moo waral màggal gi xam nga lan moo waral màggal lan moo ko waral xam nga lu ko waral waaw génn gëm génnoon ngir liggéey li lislaam waaw lan ni waxtu bu jotee na ma ci sant la waxtu wi mu doon demee waxtu wi mu demee ma defe ne kii kii ki nga xamante ne mooy savourer victoire mooy ki nga xamante ne dem na ba ñëw xam nga lu tax lu dafa bokkut ak nit wuute gi wuuteeg nit ñi moo tax moom du def li nit ñi def ndax du nit coow li bari na waaye sëñ Tuubaa la mu jëf diw man na ko kenn du ko dégg mm-hmm. sëñ tubaa mm-hmm. la mu jëf mm-hmm. keneen ku ko man na def na def moom jëfam kenn fekku ci sawli bari na de ko ne mën nga koo tëkkale sëñ tubaa waaye sëñ Tuubaa jëf na lii keneen jëf na lii doo ko dégg moom kay la mu jëf da cee wéet dëgg la moom sëñ Tuubaa wallaay dëgg la moo tax bokkut ak nit ñi wuute gi wuuteeg nit ñi moo tax nit ñi dañuy am ndam di sant yàlla waaw moom na dañuy waxtu ma génnoon waaw nan moo ko santale yàlla xamul tax. ndax génn gi mooy ndi ndam li. dëgg la. bu du demam gii wolof ak nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem nii raanu. Mhm. loolu la si musaak. wax nu ko. nga xam ni Seex Bamba reyal demam ga isan keroog la Bamba ti fab yanam ba weteli ko yàlla ba dem ma yomba ngir ba garamu mu jamono yonen ba tuubaali man bala xamoo doon yan ba yan ba nu yonoon xut bu yaag lab daan yaa taatanun ko yaa ko fab raw gaaya dëngëñ di wayi tatawatul balaaya sooratul axwaami nga am ci laaya sëriñ si naaxis la ñu bambay kaamil mbër yëpp suqulanoo bambay kaabal man sàkk fii salani kafal yu jërëbe wa may jërëbi baabi taxarube génn ga mu génnoon waaw ni sababu xaybati ya an allaha araada an anaala minhu jaaha mm. wa an akuna saafian li qawmi wa an akuna qaadiman fi dawmi moom tukki gi li ko waral wax na ko. waaw yàlla na ma yëkkati sama daraja. Mhm. waaye ci tukki bi ci la war a ramoo xeetu rasulillahi. sallallahu alayhi wa sallam waaye ci tukki bi ci laa war amee tur woo xam ne du fay ba mukk. Mhm. nee naa la xaadimu rasul. Mhm. sëñ Tuubaa ci jamono la ko fekk. waaye nag ci addina moo ko njëkk a tudd. dëgg la. xaadimu rasul. tur bi fi la ko sëñ fekk. waaye xaadimu rasul nag. kuñ koy woowee ci sëñ Tuubaa la la boo demoon ca Màkk fa yonente bi salaa salaam gane jamono mm. boo ne ana xaadima rasul naan la ma nga Tuubaa mm-hmm. xam lu tax lu tax ka def yonente bi gën gi mbindeef moo ko def mu gën kuy liggéey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Bamba mm. nee na képp ku ne ci biir toolu rasulillahi maay sa jëwriñ dëgg mm. la sëñ Tuubaa mulkul ali baaqil qadim jaalani asnal qadim liman lahu fadlu yadum moo saane naan qadami sëñ Tuubaa nee na toolub rasulillahi gi képp ku ci ne di xëyal rasulillahi maay sa jëwriñ nga yëg ko ak nga bañ ko yëg maay sa jëwriñ man sëñ tubaa sëñ tubaa moom nag génn ga mu génn mm. li tax mu nekk jëwriñu nit yàlla yëpp waaw sëñ Moussa Ka da ko wax mm. yan ba nu yanoon xutbu ya ak lab daal ya te attanu ko sëñ bamba ko yan ba nu fawroo gaañe kon dañ leen ko yan attanun ko sëñ bamba daal ne nan ko yan moom ni ko attan nag lañ ko yan yéen boobu mu diis lool waaye terewul mu yenu ko ba tax tey jii ñu mën a toog di safar tubarkàlla macha allah kenn ngi ci ligne bi dañu koy daal di jël ci 88 628 14 13 mbokk allo. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Adja Mbaye maa ngi lay nuyu te di la ziar. ndax nu kazaalika mbokk. di soxna jaara maar Tëngéej. soxna jaara maar. <laughs> soxna maam Diarra Mbacke Tëngéej. maam Diarra Mbacke soxna maam Diarra ñu ngi lay ziar bu baax Mbacke. delloo ziar maar la maar la waaye boo nee Mbacke neex na ba tey. ay ca bokk soxna soxna Diarra maar. waa maa ngi ziar wér tey am kontaan bu bëree bëree. ñoo gën a kontaan ci yow soxna Diarra. bu am commencement te amul app. ndeysaan. di ziar sama rakk joojo mbay. maam mhm. Bousso. oh soxna jaara maar la. mam bu sa maar mam jaara ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziar. cité tako démb moom lañ doon jàngal safar. ndeysaan moom ngeen doon safaral ah, Serigne Touba da koo ñor kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax way juróom lañ ko duppee kon nii rek lay mën a mel di wax ne def leen ni moom ngeen jaar ci bunt bi dama ko naroon a may paasu màggal wala ka lu mu jëndee café waaye rëcc na waaye sañ naa koo xaarandiwaat incha allah tey sama yaram dafa tàng euh, maa ngi nuyu bu baax a baax soxna ñanga bu sëñ laat bu sëñ ak Abdou Xaadir ni ma koy waxee bu baax a baax euh, saa su rek dama koy wax kër sëñ laat moom macha allah fa tabarakallahu gisuma ko fa jóge koo xamante ne dangaa dellu ginnaaw déedéet macha allah ñun ñi fa jóge ñépp tubaarkàlla ñu ngi sant bu baax kon maa ngi nuyu soxnaam si soxna ñanga waaye bàyyi xel bu baax a baax nag sama soxna si nga xamante ni mooy soxna maam Fatma Fatma Mbacke di sët ci gaynde Fatma di nuyu yaayam soxna Nayda Mbacke waaye fàttewu ma maam Boussa sama xarit ak jaara sunu doom ñu ngi koy nuyu bu baax di kontaan ci ñoom soxna maam Fati Mbacke bu sëñ Fallou itam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ziar sëñ Fallou ñang mi nga xamante ni mooy doomam nga ne yen ba man yan ba nu yenoon xam nga tey jii damay def nii rek di leen bàyyi ngeen di defar ah. tey kër gi nii la macha allah loolu la gaa yi bëgg ay ca ak lab daal ya te ko waaw sëriñ Bamba ko yanu ba nëpp fa raw gaaña mhm. kon yan wi yàlla wan na ko ku ne waaw waaye bu nee la natt bi nii la toll nga ni kenn jaralu ma ko dëgg la sëñ ma nag ne ko bakkan bi moom bindu ma ko mhm. ba xam fu fan wi toll waaw waaye am naa jom gu doy ni mhm. loo teg ci jëmb ji attan naa ko du ma ne mukk onk moo tax maam Thierno keroog ba ko Sëñ Laat Mbàkke gane see fee ca Daaru Moxti daa nuyoog ma ba noppi ne ko mën naa laa defal teraanga gu ne mhm. waaye benn kàddu rek laa lay jox teraanga Sëñ mhm. Laat ni tekk mun ko sa bàyyi ba sëñ Tuubaa lu mu mus am jom moo ko may jom mhm. sëñ Tuubaa lu am ci àddina am jom moo ko may ndeysaan moo tax mu ni nit ñee jàpp ni tubaab yee ma jàpp waaye lislaam laa doon liggéeyal mooy assiru ma al abraari dara yombul rihina assiru wa zanna al ida ani unaka assiru waaye sëñ Tuubaa li tax nag wutul woon ku ko wéttal bi muy dem ndax coow li bari na waaye doo dégg ku ni. sëñ Tuubaa bi mu dem mook sama maama ànd. moom kay daa dem indi victoire ñun ñëpp di savourer. dëgg la sëñ Tuubaa. waaw moom daa dem indi ndam ñëpp di savourer ci ndam gi. Mm. waaye sama maama ko defal nangam ca yoon wax. Mm. kenn du ko dégg. Mm. moom kay moo defal ñëpp toog nag moom sëñ Tuubaa. est-ce ah, waaye kii ak a yelloon ak a yelloon mu toog ni kaay leen sant ma sax. bu ne woon kaay leen sant ma ci bis bi yell na ndax ndam li mu defal waaye sëñ Tuubaa moo gën a modeste ci àddina mm-hmm. mooy jëf ji mu jëf li muy rëy rëy rëy daani bu leen ma sant santale leen ma ci yàlla màggal Tuubaa gi daani leen ma ci yàlla mm-hmm. daani jàng alquran jàng xasida ak bernde jaam ñi mm-hmm. nang ko doxalee noonu nga xam ne bis boobu sëriñ Tuubaa nee na aljana amul bis waaye bisu màggal Tuubaa bu jotee yàlla day soppi xéewal àjjana mhm. ba waa àjjana naan tey àjjana ji moo dàq bis yi fi jàll yàlla ne leen bis ba nootee lislaam ca ndar kii moo joxe woon bakkanam ngir lislaam est-ce que 88 le 628 14 13 moom la ñuy àndee ak yéen ci biir émission bi gis ngeen ko spécial safar la ñu wax ndax xam ngeen ni 2STV saa su ne muy màggal muy gàmm muy événement bu mu mënti doon da koy daal di àndandoo yéen ca teeru ga àndandoo yéen ca bis ba waaye àndandoo yéen ca gunge ba loolu rek moo waral tey ji émission kër gi nii lay taxawee tey fas yéene waxtaane jëmm ju tedd jooju nga xamante ni euh, la mbokk ma waxoon rek màkkaa ñu gën mag magi démb waaye ñun ñoo leen gën mag magi tey li ko waral nag bokk na ci liggéey yi nga xamante ni sunu mag ñi liggéey nañ ko rawatina Cheikhul Khadim mi ñuy waxtaane tey mbokk ngi ci ligne bi asalaamaaleykum. aleykum salaam. Euh, sama sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw Basiru Mbuub. Basiru Basiru Mbuub laa Mbuub. waaw. Yugo Fall yow rek la ñuy déglu. njaareem laay wootee Basiru Mbuub sant sëriñ Basiru. ndeysaan. waaw di di sant yàlla bu baax di sant sëriñ Basiru di kontaan ci émission bi bu baax. jëf Mbuub. di ko rafetlu di ko teew lu ñuy maa ngi nii jàkkaarloog télé bi ak sama waa kër ñu koy seetaan. yaa ngi jàkkaarloog man nii. maa ngi jàkkaarloog yow. di la ñaanal ci yaay faal nii. waaw di la ñaan ci barkeb Serigne Bassirou. ndeysaan ak saa sama borom guddal faw fan barkeb Cheikh Bassirou. allahumma amin. waaw parce ñun sëñ Bassirou lañ gëm moom lañ yaakaar. ndeysaan. àdduna ak alaaxira ndax dañ yàlla moo ne ngën ji mbindeef mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw. waaye bi mu defee ngën gi mindeef itam da see teg man gi mindeef muy sëñ Touba. Mhm. man gi mindeef waaw man gi waaw man mooy sëñ Touba. est-ce waaw ndax moom dafa ñëw xuuf paa bi li ñuy wax xuuf paa la sëñ Touba def. waaw xuuf paa. waaw xuuf bi la def sëñ Touba ku ko bëgg. mu ne dafa xuuf ñëpp moo fi nekk xuuf paa bi. <laughs> est-ce ñu daan bul ñu daan def. Oh, ndeysaan. waaw ñu daan ñu waaw sëñ bi xam na loolu ñu daan bul egaat ni waaw. boo ñëwee jam benn moom dafa ñëw xuuf paa bi. danga nga xuuf paa bi. moom sëñ Touba. dëgg la. <laughs> waaw. ndeysaan kon nag ñu ngi ñu ngi leen di ñaanal bu baax ci barkeb Serigne Bassirou. mbub amin ñu dem ci jàmm. ndeysaan ñu siwaat ci jàmm barkeb bu dul Bassirou te luñ fa ñaan yàlla na ko sa borom nangu. allahumma amin mbub. yow nag ñu ngi lay ñaanal bu baax nag ndax bu baax nga. ndeysaan doon ab bi bëgg sëriñ bi toj ci yàlla na ko yàlla nangu amin waaw ñu ngi lay ñaanal bu baax barke Cheikh Mamadou Bachir ndeysaan jërëjëf mbuub waaw ndax ñun sëñ Bachir mooy suñu dund mooy suñu dee dëgg la mbuub waaw waaw ñu ngi ñu ngi teewlu émission bi di ko rafetlu lool jërëjëf suñu xol sedd na yow bul coupé waaw yow foog ma jox la loo jëndee café Touba berndeel gaa yi est-ce que yi bàyyil gaa yi jël sa numéro ki suuf waaw d'accord waaw dëgg neexul ñu koy jaajëfal bu baax a baax Basirou Mbu woote foofu ca diwaanu Diourbel di ci nuyu waa Diourbel yëpp rawatina waa Kër Cheikh euh, di ci nuyu sama jeeg ba ki nga xamante ni rek euh, macha allah mooy yaayu Mbayang maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama frair euh, El Hadj waaye nag bàyyi xel bu baax a baax Saliou Thiam du ma fàtte itam Yacine Thiam madame Yéri maa ngi koy nuyu bu baax di kontaan ci moom di kontaan ci sama doom ja Ndeye Thiam yaayu Modou Thiam di ko ziar bu baax a baax buntu baa ngi noonu def leen ni moom. Euh, dafa mu ne Sëriñ Tuubaa dafa xuuf paa bi noonu la ko expliqué. waaw ah, nee na dafa dafa mooy jal bi ñu daan jal. waaw ah, de mooy ñi daan bul. waaw égaat bu ñëwee ku ne teg. waaw maanaam day koo xam day ñëw jambul yëpp gañe lépp. waaw d' accord ñu ne kii moo xuuf paa bi. pourtant man de égaat naa ba tay ci buntu canal ba waaye boobu de jàpp ma ko woon. <laughs> <laughs> yow sax xam nga ci dara. <laughs> man Sëriñ Tuubaa dafa xuuf paa bi. ndeysaan. kon ñu barkeeloo ci mi noonu Baal Xadim gi nga xam ni moom mooy xasideg sëñ Touba. Mhm. da wax nañ ni bu daan wax ni jox leen ma sama xaside gi mhm. moom lañ ko daan jox yow sëñ laat fan nga fan nga jàngee xaside yi waaw soxna Mbaye xaside yi moom ñu ngi ko jàngee fii ci Tëngéej mhm. ci daara ji foofu daara kër Baye Mor Samb Seck kër Baye Mor Samb Seck waaw ci daara yi fattu ba yàlla yàlla na xippee aljana yokk leeram di ci profité bu baax a baax di ci profité di ziyaare suñu jëwriñ suñu Baye Amadou Thiam Diaw suñu Cheikh Mbacke ak suñu jëwriñ sëñ Fara. ndeysaan nga xam ni ni ma koy waxee saa su nekk rek. Mm. xasida yi ñuy jàng tey ba ku nekk du ñu fu nekk. Mm. moom sëñ Fara moo ko def ci ñun Fara Gueye. Fara Gueye visiteurs yi teraanga. visiteurs yi teraanga xam naa ko bu baax xarit sama ngi noonu maa ngi koy ziar bu baax ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax. xam ne ah. moo fa nekk ak moom di sëñ Modou. waaw mu jëlaat sama rakk ju jigéen it teg ko ci palaasam. Mm-hmm. muy jëmm ju baax maa ngi koy ziare bu baax. ndeysaan ziare waa Mhm. foofu daal soxna Mbayang fa lañ jàngee xasida yi sëñ fa ngeen jàngee mhm. def ko bëgg-bëgg def ko def te Tëngéej nekk dans daanaka banlieue mhm. nga mënoon jël beneen yoon bu la neex mais terewul da ngaa sëgg ci xasida yi Sëriñ Tuubaa yi rek ndax njëriñ nga ci gis te macha allah fa tabarakallah bi ñuy jëkk def émission euh, a waxtaan euh, ah, euh, gi amoo ci réccuteef benn ah, yoon sant yàlla alhamdulilah yàlla na ko yàlla yokk ci barke yonent bi maa ngi nuyu sa yaay bu baax a baax. Ah, jigéen ju am jom la ñu jël bokk moom ci ligne bi allo. waaw soxna ñu ngi ziar. ñu ngi delloo ziar sama sëriñ. tur bi naka la fa woote. Abdoulahat Sène. Abdoulahat Sène. waaw maa ngi woote euh, man mënuma sax di wax ci télé parce que. ndeysaan. Abdoulahat mbay mi sa rakk la daal. ndeysaan. Abdoulahat aw mi ñoom ñaan mi kenn ku si nekk secteur bi nga ne. kenn mënu la si. maa ngi leen di ñaanal ñu yeggal ci seen baax jërëjëf ndeysaan doon wax lii ma sol nii xol la waxee de ah? lii ma sol nii waaw moo ma ko jox moom Abdoul Ahad seen ah. waaw fexe na ba may ba may ba dawal ci oto yi ah kii di woote moom Abdoul Ahad Sène ba mu fexe na ba ba lépp loo xamante ni ab jànqat am na ko moom mi doon woote léegi fexe na ba ma am ko ndeysaan muy muy sama mag di sama xarit mosta woote ci télé waata ngeej la waaw muy transporteur bu mag clip bii ma doon def lépp mm. këram lañ ko doon tourné mm. wax dëgg yàlla kon moom it li mu def nii xam naa ni mosu koo def mënu ko sax ndeysaan wane na ko ni mu waxee mënu ko ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi ko la suñu blaat mi xam na li may wax ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax macha allah ku bëgg wane <laughs> wujur wal masaaliw bi tey wal jës bi way nii saalim wab li yalil ma sey wala man asaali allazi yukammilu la man wal tajali dunya li al masaali xaayidatan abdal xadiman saaliha ci yàlla jël na bàyyi soxna waalo way àdduna ngi nii bu leen gowoonu woo dem gaayi duniya tey la jeex li leer moo di bambak doom ya ñoom ñépp a jeex bisu bal jumaa yi te moo déglu deefiyem mm. nde moo jël sëriñ Saaliw Mbàkke keroog ñëpp a jooy ba weex keroog mi ñaban julee jumaa jug di waaja dem dañoo wàcce ay kaamil te wax nañ moo ko wax naqar du tiise tiis ba weesu wi naqar déedéet demuk sëriñ Saaliw Mbàkke doy naaw naqar sangub Cheikh Béthio ba xutbu ba dem na mm. sangub Cheikh Abdoulaat Seen xutbu ba dem na mm. Mbàkke moo ñu jiital rayisu kulu lawliyaa ilaahi xadiimi xaadimi rasuulillaahi keroog ba mi gane si adduna mm. lañ xam ni kii mooy mu juleeral addunaam ba ngi toog keroog ci suuf di waxtaan ak seex malaa mi jobba woon ñuy waxtaan am daw li ci bamba daa di koy dee ni soxna faat jaxate am na gante mu jël loxoom bu tedd boo bambake bind ca suuf asaali a cey mbàkke muhammadu lamin dellu dem jël xalimaam bind cay bayit yu wer jokko xadim ab xaalanaa bi fali saaliya baaxil lanaa jaada bi saaliya ab xaawu samsan fi sama adëri يسأل منه وجهك عليا ay waay ji Seexul Xadiim est-ce que ni jox ko Sëriñ Mbàkke Jaxate kay mbër mm. dani ko foo xamante ni Seex Saaliw wattu naa alxuraan Saaliw keroog ba Sëriñ Saaliw wattoo alxuraan sëriñ bi woo ko jokkolee tarbee woon mm. danni ko Cheikh Bamba danni ko Cheikh Bamba mm. sa baay moo la ko jox moo ni ma woon boo mokkalee la ko jox di Serigne Saliou loolu nañ ko doon may suñ mag gi suñu blaat seen ak kasaas ko bëggalee sëñ laat yàlla na jàmmam yàgg kenn ngi ci ligne bi ñu jël ko man daanu naa sax mm. commencé naa lox mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa soxna si maa ngi lay ziar. ndax nu kazalika mbokk tur bi naka la fooy wootee. sëriñ Bamba Ndiaye mu sëriñ euh, Saliou. waaw Bamba Ndiaye laa tudd. Bamba mu sëriñ Saliou waaw mu sëriñ Saliou ay ci sëñ Bamba yow rek la ñuy déglu. <laughs> waaw soxna si naka yi tey. ñu ngi sant yàlla bu wérum Ndiaye. alhamdulilah waaw damay dugg rek di di di ci loolu suñu Abdoulaye seen dugg wax léegi. waaw. ci ñaar ñooñu toog. ndeysaan. waaw ñuy suñuy rakk. ndeysaan. yu baax ci ñun. ndeysaan yal na leen yàlla fal cat. waaw dañoo man moom li ko dal moo a dal waaw foog naa ne ba ma juddoo ba léegi maa nga mas a dugg ci télé di woote. ndeysaan ndeysaan. waaw pour wax ko ne maa ngi koy suivre. ndeysaan ñu ngi kontaan ci yow Ndiaye. Euh, waaw ñu bàyyi ko xel bu baax waaw di ko bàyyi xel moom sëñ Abdoulaye Aw moomu toog ñoom ñaar ñëpp samay rakk lañu. ndeysaan ndeysaan ñu baax a ngi. waaw ñu jëm safar wax ci kër maam Diarra ñoo fa nekkoon. jërëjëf soxna si maa ngi am na solo am na solo am na solo waaw ay gis nga ñaar ñuy dugg waa man awma lu nëpp ndeysaan kër gi nga gis waaw ñu defee fa clip bi waaw sama ñaari xarit yi dugg ñoom ñaar seen kër fa ko seeni kër la sëñ Bamba miy dugg waaw sëñ mii mi bir na ko waaw mhm. keroog xaalis bi ñu defee clip bi yëpp mhm. moom moo ko yëkkati jox ma ko moo ko sëñ seen ndeysaan seen kër fa laa mën nga am loolu de oto bi ma njëkk yor. waaw sëñ Bamba mii moo ko jënd jox ma ko. macha allah sëñ Bamba mii dugg léegi. mën nga am lu ëpp loolu. te yéen lépp lu ab jànkat di am. Mhm. sëñ Ablaye mii seer na ni. Mhm. yëkkati na kàddoom ni ma. Mhm. lépp lu ab jànkat di dinaa la ko defal. mën nga am lu ëpp loolu. kon ñoom ñaar ñuy dugg wax dëgg yàlla sama xol sedd na fi émission bi bu fi bu fi yemoon rek. sama xol sedd na maa koy seede. Euh, am nga yar am nga teggin. bëgg nga diine yërëm nga sa ndey loo am pour sa ndey la moo tax ma xam ne euh, euh, slogan ba euh, Saliou Khoule di wax rek lu waay jëndee sa ndey sa ndeyee ko gën yow jëndee woo dara ak sa ndey moo tax liy ñëw a dàq bi ma jëlaat kii ci ligne bi xëy na dina tudd beneen tur boo xamante ne parce que ay jaara Saliou Bamba tabarkàlla macha allah mbokk allo allo waaw asalaamaaleykum nañu wàññi télé bi waaw waaw tur bi naka la Serigne Niass Kaffrine Serigne Niass waaw ñas kumba yow rek la ñuy déglu ñu ngi nuyu waa Kaffrine yëpp. waaw ñu ngi leen ziare bu baax. ndax nu kazaalika. di leen kontaan seen jotaay boobu. jërëjëf yéen a ko moom. di ñaanal jëmm yu sell yooyu ak yow moomu yàlla na yàlla sa borom guddal seen fan. bu baax di baax di Serigne te saa yu ma gëstoo gis. man la Serigne Niass moom Serigne Bassirou Perokoñ. Hmm. moom Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Touba. waaw maa ngi leen di ziar bu baax di kontaan ci yéen. macha allah ñu ngi lay delloo ziar. di ñaan yàlla na ñu fekkee ko te tal ko. allahumma amiin dem ak jàmm dikk ak jàmm ci kàttanu yàlla. allahumma amiin. rafetlu naa bu baax seen jotaay macha allah. yéen a ko moom. dëgg si ci yéen kontaan bu baax. ndeysaan beneen bi baax fi nag. Hmm? allah kulli xaal. baax ba daan amin jërëjëf jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax yéen a koy demandé ñooy ki koy donné bu ngeen ko fi lesee duñ ko mës a prendre kon koy jox bu baax Lamine Bara Fall Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall waaw mi ngi mi ngi wax nañu mi ngi woote mi ngi woote naa bu ñu ko mënee dugal la ñu dugal ko waaw moom it émission bi xam naa ni moom la wax serveur bee xat waaw kay mi yaayam it ñu ngi koy ziar waaw ndax moom mën naa ni ma bëggee sax waaw moo ëpp ni ma baa ma bëggee ndeysaan muy muy suñu maam ju baax ku baax bëgg la defante ñun teraanga yoo xam ne sëñ Bamba mii di doomam sax dëgg la du ko yëg dëgg la mbay rakkam soxna jama ak soxnaam soxna soxna mami am na solo ah, am na solo sëñ euh, euh, euh, sëñ laat ma ni ngeen ànde yal yàlla la fa leen cataan amiin yaa rabbi soxna mbay nekku leen tëngeej rek di fa def ay défaut mm-hmm. ba seen waajur mu mbaay mu mu dégg rek tiit mm-hmm. déedéet defu leen ko yal na seen jàmm yàgg mbokk ngi ci ligne bi ñu jël ko rapidement tey téléphone bi nii lay mën a demee allo allo voilà ñu xaarandi ko waat euh, mbokk yi nga xamante ni ñoom ñooy woote di ci nuyu bu baax a baax sañ Abdou Karim Mbacke borom Makarim al Akhla 2016 ba léegi Mbacke gisuma la moo tax manqué nga ma benn euh, lool lool mbokk asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah Adja Mbaye. waaw soxna si. man la soxna maam jaara maar maa duggaat dëkk Dako. beneen turu beneen ah jaara bu soo ay ca maar yow rek lañuy ñuy déglu. waaw may kontaan ci sama rakk jooju di Abdoulahat càkk saa loolu caam. sa njëgu café ngi fi mi ngi nii ma yor. démb ñu nekkoon ci sama safar gi tubaab fakal macha allah kaar. ndeysaan. may ziar sama góor googu di Abdoulahat Aw. ndeysaan. li sëñ Bamba Ndiaye wax léegi. waaw. loolaa am. dëgg la. mu nekk ku baax na fa tubaab fakal macha allah. dëgg la maaraala. clip bii ñu def. taar mm. kàll. waaw. yéene rek lañ ko defee ak dem sëñ Bamba ba jeex tàkk. wallahi ma leen di ñaanal gudd fan ak wér. amiin amiin amiin. yàlla mu wéral seeni baat ba ñuy def ay duo yu bëree bëree bëri moo Abdou Lahad Aw moom. amiin amiin waay. oh dagg na euh, euh, Ousmane may may ma ci clip bi benn une minute rek gars yi xool ko tuuti rek benn une minute. ñu may ko sëñ euh, Bamba ak sëñ Abdou Lahad Sène waaw sëñ Bamba lañ koy may ak sëñ Abdou Lahad Sène moom ñooñu bër bi bu yàgg <laughs> kii Mbayang la <laughs> ñëw naa ci ñëw neen liggéeyal Sëriñ Tuuba ma jóg man ta fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuuba ko xam yàlla gëm yónneen liggéeyal Sëriñ Tuuba moroomam Sëriñ Tuuba masulam ginnaaw na ab xarnu dootul am ku dend ak Serigne Touba maqaam am Serigne Touba amul buñ ko may wa yaxlaqu ma la taalamuunaay Serigne Touba maqaamaatu aqtaabin dihaari li kullim ku boole woon peeseeg maqaam am Serigne te mbooti du jeex ba sunu jonn yàlla tey ba bañ fiy jógee macha allah Abdoulahat a ngi noonu Abdoulahat Mbaye Abdoulahat Aw ci clip bu am solo boobu ñu ci nuy bu baax a baax Pa Omar Dieng waaye nag Papa Ndaw Fall xaritam bras droit am léppam ñu ngi koy nuyu ma nga foofu ci diwaanu Tëngéej di kontaan ci moom jàkka yi kontaan nañ ci yow ah Papa Ndaw yàlla na yàlla kontaan mbokk allo allo. waaw incha allah sama sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ñu ngi lay fay. tur bi ak fooy wootee. El Hadj ma Guèye si Aliou Sow. El Hadj Yatma ah, Guèye. man ma bàyyi la nag bàyyi Yatma. bàyyi Yatma <laughs> ngoog kooku sëtu Cheikh Marouba Guèye la. ndeysaan waaw ñu ngi dem. di sunu papa di sunu xarit. Ah, ndeysaan El Hadj Yatma Sow. ndeysaan si Aliou Sow mooy woote. Mm-hmm. ndeysaan soxna Mbaye. waaw. da ngaa invité tey ndeysaan yaroo kër Sëriñ Saliou mhm. kii dëkk ci waawoon mhm. yaroo kër El Hadj Abdou Aziz dëgg la ndeysaan ñoom ñépp nag ñu daje ci Sëriñ Abdou Lahad mhm. Sëriñ dëgg la tey bis bii neex dama lool alhamdulilah dëgg la yow it aji waaw fàtte xam naa la bu baax xanaa yow loo bokk ak aji kàngu géey bu États-Unis ak jaaxa ñoo bokk ba kër Marouba <laughs> sama doomu ndey sama lépp mu ngoog man may El Hadj Adma Gueye ndeysaan bu nekkoon douane di porte parole du kër Cheikh Marouba dëgg la ah, Abdoulaye Mbaye mii hmm. Abdoulaye Mbaye ñëw na sama kër ba mu gën a nekk tuut tàgg di door a génn ca daara ja dëgg la dëgg la wala sama sëriñ toog hmm. dégg mu yëkkati hmm. mu ne ma ne yëg ci kaw buy sëñ Balla Diop bu sëñ Manar Diop di di kenn ci sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ba Abdoulaye yëkkati yëkkati yëkkati mooy bu ne ko na yëgg na jeex ba mu noppee la ko ne nii nga ko yëkkatee ñëpp danañ la dégg. est waaye boog naa ne dina ñëpp dégg nañ. alhamdulilah yàlla na ko yàlla yokk. Abdoulaye Aw bii. waaw jërëjëf ma. bàyyam yóbbu ko ci sëñ Abdou Aziz. wallaahi. Mm. mu jàngee fa alxuraan ba wattu. Mm. waaye bàyyam ne afala jabdu. dama ko indi fii ndax fii ku fi jógee da nga am xam-xam danga man mën alquran. dëgg la mhm. dëgg la waaye cëru sëriñ Abdoulaye la bu leen ko defub tijaan. wallaahi dëgg la waaye Mouride tijaan lépp benn la waaye moom baleen ko ci lim nekk. ndeysaan waaw dëgg la. àdduna maag moom yóbbu ko Tiwaawoon. waaw. dëgg fa la may fekk. wallaahi dëgg la waaye am na moom koo kàddu ak foofu yëpp fa mënti dem yóbbu ko fa. dëgg la mu dima fa taxawal ñoom ñaar ñi nekk samay doom yu ma gërëm. wallaahi mhm. alhamdulilah ñaanal yàlla yàlla nañu gën a yëg gën a jóg. amiin amiin am na solo fi nga xam ne fa lañ toll nii. amiin amiin amiin Guèye. jërëjëf Bayat ma Guèye bu Cheikh Marouba Guèye maa ngi koy nuyu sama xel dem ci sama yaay ji ajaratu Ndey Jeng ma nga foofu ci diwaanu Tiwaawan maa ngi koy nuyu bu baax a baax yaayu sëñ Diallo mooy nga xamante ni moom it sëriñ Saaliw rek ko ñor macha allah ma nga diwaanu Touba maa ngi koy nuyu bu baax di kontaan ci sama rakk jooju day bañ ma ko rakk nag ndax garaam bu buy waaye ñun ñëpp xam ne sëñ Diallo maa ko mag maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu kenn mbaw sama goro bi nga xamante ni macha allah zéro faute mbokkoo ngi noonu ñu jël ko allo salaamaaleykum. waaleykum asalaam. man la Babacar Sané ci Somone. Babacar depuis Somone. Babacar Sané Babacar Sané. sama xarit sama magu taalibe. ab ay ca Babacar rapidement parce que temps bi mi ngi jeex 17h la ñu war a jeexal. sa participation di ko di ko ndokkeel rek di ko ñaanal. amiin ak ñi toog ñëpp. amin amin yàlla yàlla yokk xam-xam bi yàlla amin fan yi yokk wér gi amin amin Sané yal na leen Serigne Touba fay jëf jërëjëf jërëjëf Sané jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax sama xel dem ci Moussa Sané ndeysaan waa Tëngéej la dem Touba Euh, ci safar gi di fa liggéey yàlla jël ko fa ñu denc ko fa ma maa ngi koy jaale bu baax a baax euh, ki nga xamante ni mooy Ndeye Ndiaye Dieng di ko jaale ñoom day Fari Dieng di ko jaale njaboot gi yëpp fàttew ma Ndeye Penda Gueye ndax nag euh, musaa sànne moo jur ay taawam kon maa ngi ko koy jaale bu baax di ko jaale Fass Sané bu baax a baax a baax nan la ñu war a màggale foofu la ñuy jeexale parce que man temps bi jaaxal na ma temps na jaaxal nañu dunnu sarax woonu may nu beneen 15 minutes wala beneen 30 waaye ñu sant Serigne Bamba Ndiaye Serigne Saliou ak Serigne Babacar Sane mi génn Serigne Bamba Ndiaye Serigne Balla Fally Dieng mooy maamam. waaw kon ñu ngi koy jox wàccuwaay. waaye ab laat Serigne Touba. neen mbokk moomu alo jël ko yow laa bàyyi nga jël ko. <laughs> mbokk mi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Serigne bi na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax jaxate. yàlla na sant yàgg. kooku dugg moom sama ay bokk ndey ak baay. macha allah kon boo ko jëlul woon tooñ gi sama damay gis taal ba Serigne Touba bu ñu gisee dañ koy bëgg. ndeysaan. waaw ndeysaan. te soxna Mbaye ak mii wallaahi chaque jour dama lay woo mais duma la jot. ndeysaan jeex na tey. waaw na nga def mbayang caam. maa ngi nii rek fan ngay wootee. Medina laay wootee. Medina anga weti waaw. xa yëg nga ni may naa la ne bakki loolu lay defee café Touba. oh dagg na dagg na dagg na maa ngi koy jéglu bu baax a baax xëy na balaa temps bee jeex mu ñëwaat tey damay safar gisoo leen ni ma def nii tey jii xanaa déggu leen ko na gaa yi ñëw ma may leen koppar mbokk allo <laughs> allo. allo waaw. waaw soxna Mbayang man de maa ngi nii. waaw. waaw maa ngi lay déglu. yaa wootee Medina nii. waaw maa woote Medina wàccal ci suuf bala moo dagg léegi ñu jël sa tur yónnee la loo jëndee café Touba. incha allah rabbi bu neex yàlla soxna. oh. man sanani xayra xadimil Mustafa ku ma njortal ni doon naa dara lu liggéey katu rasulillahi man Sëriñ Tuuba fa innani axdimu bi Mustafa damay liggéeyal rasulillahi te dam ko tànne man xaadimu rasul man sanani xayra xadimil Mustafa ku ma njortal ni nekk naa dara lu liggéey katu rasulillahi fa innani axdimu bi Mustafa damay liggéeyal yonent bi te nam ko tànne man xaadimu rasul axdimu ila duxulil janna may liggéey rasulillahi ba keroog may tàbbi aljana daaril qaraari wal muna wal minna aljana ja nga xam ne mooy këru tedd nga di këru mbébét di këru xéewal man zanna annahu yakunu abada ku njortu ni dana nekk ba faaw yurdi billadi ka xidmati bada ngërëm li ma yonent bi ngërëm da nga am lu mel noonu fa xarraho fa xarraho dalal wali dalalo wóoru nga réer nga te da ngay réeréele yana xaadul imino di la <laughs> yàlla woo ma tal na ma lépp lu dagan Bamba ma daatu xablu la daal li bar wali tagg naa ko lu jiitu may dem li bar wali ma daan wanaan misti kul wali tagg woo xam ma yomba tagg naa fa nga xam ne mooy yomba maa yu wa kafazan ba moo misiki waax madaatoo inda unaasi galwa tagg naa ko ja xeetu galwa madan kabaaniyal ida wal balwa tagg woo xam ne fegal naa ma sama noon ak bépp lënt lënt min nii ilay xidmatun qad laadamal jógee na ci man jëm ca rasulillahi liggéey boo xam ne rawdatu ilal qiyaami uzima dañ koy màggal ca rawdu rasulillahi radiyani sibtu jayla Cheikh Abdou Qadir Jeylaani nee na ma jërëjëf Serigne Touba alayhi ridwaanu lazi alaani yàlla ko yàlla fay yiw moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani radiyani sibtuhu Abul Hasan Cheikh Abdourahmane Assasali ni ma jërëjëf sëñ Touba alay ridwanun yuqallidul hasan yàlla ko yàlla fay yiw bu rafet radiyani tijaani si Ahmed Tidiane Serif ni ma jërëjëf Serigne Touba alayhi ridwaanun mubiidul jaani yàlla ko sunu borom may yiw laa wax radiyaani xulafaaul arbaa Ababacar ni ma jërëjëf Serigne Touba Omar ni ma jërëjëf Serigne Touba Ousmane ni ma jërëjëf Serigne Touba Aliou ni ma jërëjëf Serigne Touba turidal muqarabi nan mutba eh man escorte bi dar yàlla jege sunu borom nee na ma jërëjëf Serigne Touba man lam yakunani eh, yarda fal karim soxna Mbayang mbër yu mag yi bu nee na jërëjëf suq ba looxul jërëjëf lu mu lay wàññi man lam yakun ani yarda fal karim man lam yakun anni yarda fal karim nee naa la ñuy wax sëñ Tuubaa jërëjëf ku ko waxul lu mu koy wàññi rabbi yaani yaridan laysa yari man lam yakun anni yarda fal karim man lam yakun anni yarda fal karim nee na képp ku ma gërëmul yàlla mi ma bind gërëm na ma te ngërëmal yàlla doy na sëkk barke wallahi lazim yaridan laysa yari ndax sëriñ Tuubaa bi mi liggéey rasulilah dañu yàllaahu bil mustafa yàllaahu bil mustafa sindi di yàllaahu wa bi qalilika ibrahima xalilika ibrahima yallaahu way wone yallaahu la tàmbale yallaahu la daanu sëñ tubaan yallaahu yallaahu yàlla maa ngi lay ñaan ci turu yeneen bi mi nga xam ne as sindiit mooy sindiit wa bi xalilika ibrahima yàlla ak ci darajay sa xarit ba yonti yàlla ibrahim wa bi kalimika musa salihin qadirin darajay yonti yàlla musa ma nga waxante woon ak moom wa bi sohaybin wa ismaila yàlla darajay yonti yàlla sohayb ak ismail haarona yuusufa iliya ilyasin wa adama daa daraje haruna yuusu ak ilyas ak adama daawuda uda wasil kibri saalo tayallaaw moo tax ali salli wa sallim daiman abadan alayhi salli wa sallim daiman abadan wa man qabaw li yow allahu alayhi salli wa sallim daiman abadan yàlla bul jóg mukk di julli ak di sëlmal ba faaw ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li yawmi diini yàlla ak képp ku sol sa dàll teg ko fa ko yonent bi teg alayhi salli wa sallim daiman abadan yàlla bul dañ mukk di julli ak di sëlmal ci rasulillahi wa man qabaw li yawmi diini yàlla waay temps bee gàtt waay temps bee gàtt temps bee gàtt. si nit boobu nag ñu ngi koy may sëñ Bamba. sëñ ndax ndax sëñ moo ne ma maag sëñ blaat mi. Mhm. dëgg yàlla si nit bi bu ngeen ko jàngee. nga jàng ko sëñ blaat firi ko. Mhm. maanaam li tubaab naan inspiration bi. waaw inspiration bi inspiration bi moom moo nu ko jox. dëgg d'accord sama jàng yi may def sëñ Saliou fa lañ ko njëkk a jàngee. Mhm. kon moom it ñu ngi koy sant ndax yemul ci jël alalam di ñu teral. conseil waaye dañuy digg lu baax loo xam ne bu ñu ko defee. ñëpp dégguñu. alhamdulilah kon moom amuñu fayam. macha allah ku ñu xam. tëngee di rek. Mm. xam sëñ Abdou Lahad. Mm. di nga dégg sëñ Bamba ca wet ga. Mm-hmm. dégg sëñ Abdou Lahad seen ca wet ga. am na solo sëñ Abdou seen moom man du ma wax ci moom. Mm. ndax uteeloo maa ngi rakkam ji mu bokkal ndey ak baay. Mm-hmm. macha allah loolu xam naa ci dara. kontaan ci bu baax a baax a baax ci émission bi euh, waaye nag merci lool ndax gàttaay bi ndax su ma ah. sañoon sama gars yi damay am ak ñoom deux heures de temps. ndax euh, macha allah li ñu bëgg a wax yépp dafa am solo. te nit ñi kontaan nañ ci waaye émission bi yëpp jël naa ko jox ko sëñ laat bu sëñ Abdou Xaadar maa ngi ko koy jox bu baax Mbàkke Balla ay sama ca ngay nee naa la euh, man Mbàkke laa jëkk a wàcc ci say kër Xadi Jong ak Modou ak euh, ki nga xamante ni rek euh, mooy sama yaay ja maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Adja kole Jong Eh, jóge fa ñëw yoof tubaarkàlla macha allah meruma benn yoon waaye nag dama wax ne sëñ laat lañ ko doon liggéeyal ca biir waañam wa rëcc wuñ ko benn yoon eh, lu tax ci sëriñ Touba ku ko liggéeyal damay wax ne ku yàlla gërëm mhm. ku ko liggéeyal ku ne rek eh, la ko yàlla gërëmee mën nga caa am loolu moo ñu dal ci sëñ sëñ laat bu sëñ a Khadre damay gëj a gisanteeg moom lool parce que 2016 laa gëj Touba parce que li ko waral man xam naa ko mhm. Euh, ndax ñàkk wér rek la balaa ñu ne dafa doon lii moo tax mu kii déedéet ñàkk wér moo tax lu ci bari du may dem màggal Touba mais sëñ laat fa ma ko defoon ba tey jii euh, euh, falaa ko gën a def sëñ Abdou Karim Mbakke maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye kenn du soxna maam Fatma Mbakke sëtu gaynde Fatma boobu di doom ci soxna Nayda Mbakke tubaarkàlla macha allah xaarul sama dara. ni leen gars yu baax yi di defal noonu la may defal ci xeetu teraanga te mënoon naa xaar nag ma dajale addu ya ñëw indil ko te kon boobaa dama koy wëri soxna ñanga noonu la mel bu ma demee paan la may jox def ci ndawal ba mu fees soxna ñanga bu sëñ laat boobu màggal Touba xotti ay piis segal ma ci bu ñuy nuróole sax mu ne ñawal leen mbay ak mi la toll bu ñëwee fekk ko fi kon soxna ñanga lay xaar ci sa kër sëñ Abdou Lahad googu yàlla na la fa fekk ñu tàggoo waaw ay ca nga demal sëñ Touba topp siti la toppum siti ci askan day dugg fii bu sa maam cité. day topp set yi. ñëpp lay topp <laughs> loolu rek laa doon bëgg a dolli. ndeysaan c'est que géwél a neex. jërëjëf soxna la géer yàq la <laughs> daf la yàq daf la pikiir daf la jalis xamoo te suñu yaay. ndeysaan suñu yaay euh, suñu waajur wu jigéen. waaw xam ni wax dëgg yàlla ñun amuñu lu dul moom. ku am jom. ak yàlla di ko ñaanal suñu borom guddal fanam amin ba yéen a gi ñu am ci moom ñu mottali amin amin suñu waajur bu góor mm. ndax sama waajur bu góor li may def nii moom ko dàq moom a dàq jàng foofu waaye ñun niñ ci nekkee nii di dem ci télé yeeg yooyu ndeysaan moom fekk ko ci kiiw ko ci waaye xam nañu bëgg gi mu bëggoon Sëñ Tuubaa mm-hmm. ak di jàng xasida yi mhm. moom la ko suñ tubaa fayee suñu jëmm yi mhm. di ko ñaanal suñu borom guddal fanam ak bilaay sëriñ tubaa mënoon na ko fayee seen jëmm yi par ngeen wàcc jël weneen yoon ak suñu mag suñu suñu taawu kër sëñ Modou mhm. moom ñu koy ziar bu baax di suñu mag di ku ñu ku delloo ziar waaw di ko ñaanal suñu borom guddal fanam di ziar nag sama soxna soxna maam na koy waaw ah, moom it maa ngi koy ziare baax di ziare magam sëñ Fallou Seck <laughs> mënu cee ñàkk di ziare waa daayira fat ko ba diwul baax yëpp nag ndeysaan te ngéej fu fa mhm. na temps na ah. euh, ma koy signalé euh, waa daayira maam jaara bi nga xamante ni soxna Maada Thiam ca la bokkoon itam maa ngi leen di ziar di jël émission bi di leen ko may ay ca looy tàggoo rapidement rek rapidement xanaa mhm. jox naa la sa wàccuwaay foo dëkk ci Tivaouane kër Cheikh Awa Balla kër Cheikh Awa Balla nuy naa ñoom ñëpp mm-hmm. nuy njaboot alaaj mu daaw ndeysaan bawuma kenn da ko dalee ci Pa Moussa may taawam ba ci caat mm-hmm. bawuma mm-hmm. kenn maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw soxna Anna Mayga waaw moom it maa ngi koy nuyu baax di ko Ousmane bul jël sama 4 minutes yi des affaire la maa ngi koy nuyu di ko ba waaw jox wàccuwaay bu baax jërëjëf di nuyu sëñ Massamba Sarr kennal sëñ Touba ak soxna Ana soxnaam jërëjëf maa ngi nuyu baax njabootu sëriñ Touba gi yëpp jërëjëf a baax ki nga xamante ni mooy Cheikh Tailleur euh, koy nuyu bu baax a baax euh, di nuyu Seydina Ousmane euh, Seydina Alioune mi nga xamante ni moo dagg piis bi jox ma foofu ca marché Yoff maa ngi koy gërëm bu baax a baax bàyyi laat nga gungee ñu dara rek incha allahu taala ñu àndandoog loolu bismillah ak daara yàllaaw safi baqaa abi lii bi ka yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sharika lahu wasi wa maalik wa an lii bi ka yàllaaw